waaw comme ni ñu ko waxee rek eh, jouer contre le Brésil quel que soit le résultat da nga ci gagné. Mm-hmm. parce que soo bëggee xam sa sa doole dëgg dëgg dëgg dëgg il faut nga dem frotter wu avec les. les meilleurs les meilleurs. on a vu le Sénégal jouer à la Coupe du Monde poule bi ñu nekkoon déjà c'était pas une poule facile ñu génn on a on a on a rencontré certains certaines nations yoo xam ne c'est des nations de football bon c'est vrai malheureusement contre contre la l'Angleterre euh, on passe à côté du match mais li li wër mooy. Euh, bu fekkee dañu bëgg a yam ci ci roq bi fi rek di jouer ay par exemple yenn kii équipe yi di leen gagné euh, mën nañ gagné Coupe d'Afrique mais si on veut encore faire de très bonnes performances. mieux que le, Mar le Maroc pourquoi pas. mais écoutez le Maroc euh, et pourtant Maroc Maroc presque démb bi ñu koy gagné y avait beaucoup de joueurs qui étaient dans dans dans l'équipe mm Afrique du Sud moo gagné parce que Afrique du Sud qualifié woon na déjà mais daf ko recevoir. je pense que je pense que le Maroc li mu li mu. dix dix euh, Maroc moom dix Afrique du Sud am neuf. oui après kii dóor Garoua. le le le le Maroc était déjà qualifié. Mhm. mais Afrique du Sud du ko gagné daf koy raw léegi. Mhm. je pense que tey jii euh, il ne faudrait pas que les gens soient trop exigeants si Sadio. Mhm. Sadio c'est un vrai patriote. et l'entraîneur en tant que tel Aliou tey jii. vu le nombre d'années yi mu def ak sélection bi il connaît ses joueurs. oui c'est une équipe boo xamante ne qui n'a pas perdu depuis presque huit ans ci phase qualificative Coupe d'Afrique des Nations. ça c'est une performance. huit ans ah, c'est n'a pas perdu. c'est bien avant ça sax parce que boo xoolee pratiquement depuis Amara Traoré. Mhm. mais dañ doon ñëw surveiller les ah, les les qualifications. mais <laughs> chaque fois que ñu ñëw ci compétition majeure bi. Mhm. coupe coupe d'Afrique bi ñu ñibbisiwaat. Mhm. te gagné nañ vous avez vu Aliou il a parlé avec un journaliste ni ko on est champion d'Afrique ah, <laughs> c'était avec euh, Gomis oui <laughs> tey jii il ne faudrait pas que les gens soient trop pressés il y a une génération de jeunes footballeurs yu nekk ci club yu baax en Europe mm-hmm. di tase ay ay moroomu joueurs yi ay ñoom Neymar yi et cetera président tout à l'heure vous m'avez dit Euh, sans l'équipe type du Brésil sans l'équipe type du Brésil bon sans Neymar loxo sax <laughs> mais nous avons la joué la Coupe du sans Sadio Mané mm. effectivement. Et, on a vu le comportement de cette équipe. et pourtant et pourtant aujourd'hui euh, ce que Sadio faisait. Mm-hmm. et continue à faire sur le flanc gauche. pense que tey jii na ko ko nit ñi nangul Ismaël Sarr est en train de faire un bon mm-hmm. travail sur bien le sûr, flanc. Bien sûr. donc ils vont jouer contre le Brésil sans complexe. absolument quel que soit le trio qui sera mis en place. Mm-hmm. mais coach tey yaa ngi nu joué tey ak HLM. tey ngeen def li nga xamante moo di 0-0. ñàkkul ne. lii maanaam Ligue 1 bi Ligue 2 bi est-ce que gisoo di am na amul benn wala ñaari jours yoo xamante ne. war nañu mën a leen dugal accéder maanaam ci maanaam ci équipe bi. après ñu tëj ci équipe A bi. ah euh, je pense que ñi ki war a mën a accéder ci équipe A bi Aliou rek moo xam. yoo xamuloo. non xaw ma ko. d'accord <laughs>